monsieur le ministre d'État Habib Sy ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay madame Kane. am nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi tey. jërëjëf. monsieur le ministre d'État yow euh, bokk nga ci ñuy teewal opposition bi euh, ci comité bi nga xam ni moo war a saytu lépp lu ñuy doxal euh, ci xeex bi ñuy xeex coronavirus ci Sénégal noo jàngatee sa bokk d'abord ci boobule comité. waaw man waa Front de résistance nationale ñoo ma wóolu. Euh, tànn mi ci ñi nga xam ne ñoo war a dem teewal ko ci foofu ni koy doxalee. Hmm. maanaam ci mbas mi ndimbal yi nga xam ne ñu ngi koy def jamale ko ci askan wi jamale ko ci santé bi ak euh, yeneen yoo xam ne gi xëy na gouvernement waxu ko ci. Hmm. ma ciy sant waa front nag bi nga xamee ne wóolu nañ ma ba boole ma ci ñi nga xam ne ñoo ko war a teewal foofu a ah, li tax ma nangu ko nag dama jàpp ne fii mu nekk dañu nekk ci ci mission mission boo xam ne bi que. Euh, réewum Sénégal comme réewu àddina yëpp moo nekk ci njaqare moo nekk ci tiis alors bu sa réew tollee fu mel noonu nag am na yoo xam ne yu bëri waratoo koy seet li nga war a toppatoo rek mooy même fekk na da nga bokk opposition ngay def loo xam ne lii euh, luy euh, luy jëm ci pexe pour que réew mi bañ a tas pour réew mi sauver pour réew mi sowee nag il foo ku nekk fàtte sa bopp mooy opposition dafa war a fàtte boppam xam ne li ko dese mooy rek di defar di tabax pour que dëkk bi bañ a bañ a màbb wax ne tim ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk ñu yore nguur gi il faut que ñu am dënn bu yaatu ak xel mu rëy ba dégg loolu xam ko ñoom it seen taxawaay ya nga xam ne moom lañ doon taxawaay ñu leen koy ñu leen koy ŋàññee muy ay par parloog dugg na fii génn fii par farak fii ak et cetera di xalaat ay pexe yu ñuy def pour gën a dëgëral seen toogaay yooyu ñoom dañ ko war a bay fàtte ko teg ko fële xam ne léegi Sénégal benn Sénégal rek moo fi nekk amatul pouvoir amatul opposition li fi nekk mooy ñu def ay pexe ba nga xam ne danañ sauver suñu réew bi ñu ma ko waxee nag comme man yàlla def na tim ma am tuuti expérience ci administration nekk cadre administration yàlla def na aussi ma am expérience ci état yàlla def na ma nekk expert am expérience ci politique ma leen di sant ma leen naa dem nangu ko man it bu ma demee nag ñoom ñooñ opposition ñoome wax parce que du ma du ma am du amul toog ak ñoom ak ñoom ñoo ñuy wax seen xalaat nan lañ ko bëggee fu ñuy jëm et cetera et cetera boole suñu xalaat loolu la ñuy dem taxaw foofu te xam ne nag am na loo xam ne li dofuñu jinde jàppuñu nit ñi nañ bàyyi xel loolu bu baax te am kóolute ci ñun am na ci jamono joo xam ne ku fa toll boo ko defee yaa ngi war réew mi te yàlla nañu yàlla musal. duñ nangu mukk ñu ñu dut baaraam. ne mission bi ñu leen jox ñun bu ñu demee bu ñu demee dañoo war Sénégal te duñ nangu tim te duñ nangu mukk buñ demee toog foofu di xoolaan wala di seetaan ñeneen di def ay jëfin yoo xam ne dafa jëm ci wor réew mi waaw loolu il foo que ñu bàyyi ko xel demuñ fa pour suñu bànneexu bopp dañ faa dem parce que dañoo xam ne réew mi moo soxla bu réew mi soxlaa nag ñun ñëpp ñu bàyyi lu ñu nekkoon jàppale réew mi yàlla ñu yàlla jàppale ba li nga xam ne moom la ko Sénégal bëggee ñu defee ko ko. waaw mais ñu bëri jàpp nañu monsieur le ministre ne euh, bu ngeen fa demee it amul njëriñ ndax euh, li nguur gi di décider décider na ko seddale ndimbal li déjà tàmbali na marché yi joxe nañu ko yéen ndax jàpp leen ni fi mu ne béy wéy na mbuus ci mbirum euh, coronavirus geeg ni nu koy gérer ci Sénégal. waaw def naa ne ñoom dañ ne am nañ budget junniy milliards junniy milliards yooyu boo jëlee man li ma xamagum liñ ci defagum mooy juróom-benn lu toll ak juróom-benn fukki ak lu topp mooy ci affaire ceeb ñoom seen yooyu. kon mel na leen laalaguñ cee dara n'est-ce pas. waane kii nga xam ne mooy front bi nga xam ne moom laa bokk li nga wax moom wax na ko ba pare ñun wax nañ ko nee nañ euh, état bi dafa euh, dafa dafa dafa gaawantu te gaawantu ak yàkkamti ak yàqu ak yàqu la ànd. mënoon na ne tekk na tey lu situation bi jafe-jafe li nga xam ne président de la république waxoon na ko ba la ñuy dem di jënd ak ceeb ak dawlin ak suukar ak lu ñu mën a doon comité bii nga xam ne moom la ñu wax ne ñëpp ñoo ciy bokk ñu teg ko ba pare. boo ko defee ñu saytu ko alors comme defuñu ko nag dem ni njëkkalante lii fekk leen ci ah ñun wax nañ ne loolu moom ñun buñ demee li nga xam ne mooy suñu xalaat ma xam ne front bi yónnee nañu ko buñ demee danañ ko wax buñ paree nag rendre compte front mën a jublu loolu ak yéen waa presse bi wax leen lan mooy ci suñ taxawaay. Hmm. mais déjà suñ taxawaay sax xam ngeen ko parce que euh, démb euh, front bi def na communiquer wax lu mel noonu mais du caaga ne rek ñoom def nañu loolu. ñun ñu war a taxaw n'est-ce boot suñuy loxo di leen seetaan ñuy gën a yàqal askanu Sénégal tolluñ ci jamono jooju bu doon dafa nekk situation normale mën nañu toog di leen seetaan mais fii ñu toll kenn kenn kenn kenn ak koo mën a doon ak foo mën a nekk yaakaar nañ ne amuloo droit toog di seetaan gouvernement bi wala keneen muy def loo xam ne lii day yàqal askan wi loo ci mën a ji jobbanti jubbanti na ko def pour intérêt réew mi bu ñu jógee ci loolu nag ñu dugg ci leneen loolu daal moo ñu fa yóbbu du leneen. Hmm. est-ce que jàpp nga monsieur le ministre ni njuuj njaaj dafa am ci marché yeeg ni nu ko joxee moo xam jëndum ceeb bi la wala transporter ko ci biir euh, réew mi. waaw xam nga yooyu itam comme ñun dañu ñoo yónni bu ñu fa demee danañ jël ay leeral yu mat sëkk yoo xam ne ñoom danañu ko wax bu ñu amee nag ay leeral yoo xam ne wax nañ ñu ko ba mu leer suñu bopp ñun xam ñun ban attitude la ñuy jël ci loolu n'est-ce mais déjà moom coow li bëri na coow li topp na leen moom eh njuuñ rek am na ci nangam nangam et cetera bon mais xam nga ñun à notre niveau mënuñu tëb tëb te rek ne loolu am na li ma mën a wax ci sama wàllu bopp de mooy dañoo yàkkam ci mbir mi loolu sax parce que boo xoolee ni ñu organiser yëf yi am na euh, conseil stratégie am euh, conseil am comité stratégique bu nekk ministère des finances te opération yi ñuy def yi ñuy jënd ak yëpp ci sama xam-xam ci sama dégg ni nga xam ne moom la ñu bindee décret boobu mooy comité technique bi moo waroon def loolu mais dafa def ne dafa mel ne ministre bi moom jubbu boppam rek moo dem jël engagement ci pression président de la république def li nga xam ne def na ko moo tax xam na bu erreur di am foofu la war a jógee mais yooyu yëpp danañ ko danañ ci danañ xam lan moo ci xew liñ ci war a taxaw incha allah danañ fa taxaw. ni ñu yoree crise bi. dal na sa xel. waaw wax dëgg yàlla nag bon damay ndokkeel di sargal di sant ñi nga xam ne ñooy euh, personnel sa santé bi. ministre bi professeur Seydi ñoom professeur euh, Bousso ñëpp daal ku lim juum ñoom professeur Sall et cetera. ñoom ñëpp ku nekk yaa ngay rayante la nga mën def ko gàcce ngaalaama gàcce ngaalaama vraiment suñu suñu médecin yi euh, yaakaar naa bu ñu fi jógee comme adduna bi yëpp dana am changement yu bëri yoo xam ni war nañ koo jëmale ci ci wàllu santé li ci des mooy gis nga ñun opposition euh, société civile ñëpp tous les segments yi yëpp dem nañ bu ñu président de la république wooye ñu dem wuy jiko ne ne ko lii nga xam ne dañu ciy woo lan la ciy fekk parce que fekkuñ na ci ngir sa bopp yow dañu la cee fekk ngir Sénégal parce que Sénégal moo ñu gën a lépp te moo ñu ëppal lépp. comme loolu nag ñu dem ba assemblée nationale ñi nga xam ne ñun ñoom fa toogal sax jox ko loi d'habilitation ne ko jox nañ le pouvoir yëpp lu la neex li defal defal pas lu la neex defal mais man nga am trois sax di jël ay loi et cetera ñu def ak moom loolu ngir réew mi bañ a yàqu dee bañ fee bëri et cetera c'est vrai am nañ ay position yuy jël yoo xam ne yi c'est discutable mais yooyu comme ñun dañu nekk ci mission te man dañ maa yónni ma nekk ci front bi lépp luñ ci war a wax danañ dem fu fulaak fayda ca comité ba nga xam ne moom la ñu bokk te ñu rattaché ko ca président de la république ñu wax ko ko moom mu dégg ko n'est-ce waaw buñ ca jógee nag euh, lañ war a wax ak san ci askan wi itam danañ ko danañ ko wax askan yi mais daal ñu xam ne dañoo dem pour teewal fa askanu Sénégal demuñ fa ngir suñu bakkan demuñ fa ngir suñu jubbu bopp demuñ fa ngir lu ñu fay lijjanti dañ fa dem pour suñ xel suñu xalaat suñu mënin ñu yóbbu ko fa pour que lii nga xam ne mooy mbas mi dugg ci réew mi dugg ci àdduna bi ñu ñaan yàlla suñu boroom ci kattanam ak ci mbaaxam mu teggil ñu ko gannaaw ñun bi nga xamee ne def nañ li nga xam ne mooy cëru nit. alors yow ku la xam euh, xamee la Linguère ñu bari am nañu tiitaange aussi euh, ci biir réew mi déjà tàmbali nañu sax alerte ci ay jafe-jafe yoo xam ni euh, xëy na coronavirus bi indi na ko fa loo dégg tey fa Linguère nga xam ni fa nga cosaanoo. bon la ma fa dégg mooy nit ñi nga am ay jàq rek tiitaangeeg est-ce que yi dana mat est-ce que bu ñëwee duñ ko politiquer jox ko seen niir waa APR nangam nangam et cetera. te loolu lépp nag ñoom gouvernement moo ko indi bu fekkoon ne <laughs> defoon na li nga xam ne moom la war a def muy def commité bi avant muy jënd yooyu di ko distribuer loolu lépp du ko ca fekk waane comme dañ ne dañu toll ci fii nga xam ne actuellement mooy euh, ku nekk def sa sacrifice pour réew mi ñun lañ ci man ci defar danañ ko def ba tey ci coronavirus bi monsieur le ministre euh, cas communautaire yi ñu ngi wéy di bëri feebar bi itam mi ngi gën di law euh, ndax ànd nga xëy na ci bu ñu ne woon confinement danañu ko amal ëllëg ci réew mi waaw xam nga situation yu mel nii moom xam lu ñu war a éviter ci réew mooy buñ ne football ñëpp nekk entraîneur buñ ne basket ñëpp nekk ay basketteur ne politicien ñëpp nekk politicien waaye ne médecin ñëpp nekk médecin rek dañuy wax dëgg moom ay wax ci rajo yooyu taxul nga nekk médecin mm-hmm. buñ tollee ci yu mel nii am dal ak mat koo xam ne ñi nga xam ne ñoo yore xam-xam boobu ñu bayee leen ko man buñ tollee fii ñoom am nañ seen stratégie mm. ñoom professeur Seydi ñoom Bousso te stratégie boobu ba léegi wax dëgg yàlla mi ngi dox mm. n'est-ce pas bien que cas mi ngi yokk communautaire yi mais alhamdulilah ñu ngi koy gérer ci ci ci seen niñ ko niñ ko mënee buñ tollee ci ñu ne nag nañ confiner ñoo xam partiel ñoo xam sectoriel wala confinement total wax ko ak nguur gi parce que tudim du lu yomb bañ d'accord ci eh ñun loolu corps médical bi wax daal lañ koy jàpp dañ koy dañ koy dañ koy confinement. te yaakaar nga ni sénégalais yi danañu ko mën a supporter boobule confinement. waaw xam nga nag confinement moom maanaam toogal sa kër bul génn bul dem. Euh, neexut dafa métti. réew yu am yëpp yaa ngi gis nit ñaa ngi manifester boo demee États-Unis président États-Unis moom ci boppam sax mi ngi manifester contre confinement am ay militants yu koy jàppale. boo demee Maroc da ko fay gis boo demee turki da nga ko fay gis parce que nit ki. dafay bëgg toujours ñu béyu ko mu moom boppam di mën a dem ak dikk même bu fekkee dafa am danger boo xam ne mi ngi fii bu yëgee ne am na benn autorité bu nekk ci kaw bu koy teree n'est-ce pas euh, liberté naturelle am mooy dem ak dikk boobu li muy njëkk a def mooy day day day fippu bon mais ñi nga xam ne ñooy njiit nag ñoo war a xam nan la ñuy waxtaaneeg seen askan ba ñu mën koo nangu bu ñuy def loolu problème communication moo ci ëpp solo am na ñoo xam ne ñi ay politiciens sama maas bu ñu nekkee di wax peuple bi kenn du leen déglu parce que dañuy wax ne ñii ñi nga xam ne ñoo ko yelloo ci jamono ji bokk ci santé buñ ca tolloo nga xam ne ñëpp nangu nañ seen xam-xam ak seen man-man ñu defal leen ay plateau ñu wax ak askan wi ne leen lii la lii la lii la lii la ak ñi nga xam ne ñooy force de sécurité expliqué population yi bu boobaa yaakaar naa danañ ca danañ ko mën a def mhm. mais nag comme àggaguñ ci nañ xaar ba àggu ceeg jàmm ñu xool nan la gouvernement bi di jëlee communication boobu. mooy doon laaj bu mujj bi monsieur le ministre d'État noo gisee ëllëgu Sénégal bu corona weesoo. ëllëg bi moom def naa ci ñaari article contribution ñu publier ko. mooy euh, buñ ci génnee ah man de ci sama gis-gis rek li ma xam ne sa tuuti. mooy adduna moom ala kulli aal dana soppeeku soppeeku bi mooy xam nga nit bu tiite li muy njëkk def mooy day day dellu fu mu jógee woon. yow boo tasee léegi ak xurdonk xam nga luy xurdonk. déedéet mooy escargot déggooloo wolof xale yu ndaw <laughs> waaw yooyu wolof moom dégguma ko <laughs> boo tasee xut donc fii léegi ci mbedd mi li mu njëkk a def mooy dugal bopp bi rek nuuru nit tim comportement boobu lay am fi mu nekk ñëpp tiit bu ñëpp tiitee ku nekk da ngay lemu n'est-ce pas ci sa dëkk n'est-ce pas gisuloo sénégalais yi bi ñu tiitee ci coronavirus bi ndeysaan dañuy dawee ay Europe Italie Espagne et cetera dugg ci désert bi jëm si parce que mm-hmm. fii la ñu xam même fekkee ne système de santé ba fële la gënee nekk ci seen mbokk la ñuy gën a yéegee ne ñu ngi sécurité état yi comportement boobu la ñuy am dans un premier temps bu ñu ba ci kanam nag ñu ubbiwaat seen bët xool xam ne nit ñëpp a yem mën nañu am bereen coopération boo xam ne bii jëflante suñu diggante mm-hmm. bu wuuteeg jëflante bi weesu ñu génn nga xam ne jëflantu noot noot noot noot rek la état yi nga xam ñoom puissance ñooy noot ñi nga xam ne amuñu doole. ba pare naan Afrique problème mooy dafa bëri ay doom dafa bëri ay nit mais c'est pas vrai bu fekkoon ne richesse bi nga xam ne adduna bi dañ koo am dañ koo tasaare def solidarité ku nekk mën cee jot mais mën nañoo dem ba am cinquante milliards ci suuf si te kenn du ko yëg mais bu fekkee ne xaalis bi dafa nekk ci loxol ay nit ñoo xam ne ñu néew lañu rek mais il faut que xiif ak sonn mën fi am te loolu il faut que mu jógee fi l'Afrique nag fi la mën a jógee am su war souveraineté chef d'état bu fi jógati ñu xool ne yow da ngay dem di jaamu ay France ay et cetera euh, nekk benn wii wii wallaahi peuple yi dala la fi jule il faut que ñu profiter ci situation bi nga xam ne moom la ñu nekk pour ëllëg ñu jël suñu indépendance définitivement parce que day am période boo xam ne bii ñoom seen bopp sax dootuñu tal. bopp sa bopp lay doon sa bopp comme bopp sa bopp la ñun nañu def suñu pexe ñun waa Sénégal ak waa Afrique ba génn ci loolu moom suñu bopp de façon définitive. Mm. alors Sénégal nag bind naa ko ma ne ñu bëggee àgg foofu man ñetti ponk laa gis yoo xam ne yi rek war nañ ci liggéey bu baax a baax élection bu ñuy demati mu nekk bu leer nañ ba kenn du ko mën a contesté hmm. loolu xam nañ ko boobu la war a njëkk a def nit ñi am confiance ci loolu beneen bi mooy justice xam nga réew justice moo ko yore bu fekkee ni nit ñi dañu am njaaw njort ci justice rek même bu ñaaw njort ba dul dëgg dafay indi gàllankoor ci réew mi ñetteelu banqaas bi mooy la presse il faut que presse bi nii muy comment def liggéey bi ci coronavirus bi mu wax dëgg yàlla mu continuer ko. mooy di def des programmes changer de ligne de développement. service public des émissions utiles yoo xam ni progrès di jëmale réew mi kanam di woo ay borom xam-xam ñuy wax bien sûr il faut qu'on un peu de divertissement et de culture et mais programme yi nga xam ne day nekk politique de diversion ku saaga nit ñu ne déggal la mu wax ku wax lu bon ñu ne dama jëli ko et cetera loo xam ne li amul askan wi benn njëriñ kooku tim presse bi da cee war a génn te loolu état bi moo ko ci war a jàppale. Hmm. ma ne ñett ñooñu boo xamee ne am na changement ci seen biir ñoom ñooy xëccaale lépp li ci des pour que changement am ci réew mi. te bu boo amee ci réew mi. mën nañoo dem ci progrès man de loolu mooy sama gis-gis pour le moment sama hmm. xalaat foofu la toll. jërëjëf monsieur le ministre d'État Habib Sy ñu ngi lay gërëm. Hmm. amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi. maa lay gën a kontaan bu baax madame Kane merci